UNES di kuréel guy yëngu ci événementiel diirum ñeenti weer wu ñu xànc ak morom te dara waralu ko it lu dul feebar mbas mile loolu yi tax ñu yuuxu wàllu jëmale ko ci njiitu réew mi président Macky sàll ngir mu jàppale leen ginnaaw buñ demee ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké ak lenn ci ay kilifa yu nekk ci dëkk bu sell bii di Touba daldi dinañ janoo ak taskatu xabaar yi ngir fësal seen jafe-jafe yooyu yi ñuy jànkoonteel jamono ji di leen di nuyu ci turu Ines ci turu Gana Diop président union nationale des entreprises événementielles du Sénégal. ni ñu ko xamee keroog bi mbas mi jugee duggee ci réew ak toll ci 4 mois secteur bi ñu nekk di ci yëngu événementiel bâche tente ak cérémonie mooy événement bi njëkk a taxaw ci réew mi. keroog booba ak tey terewul ñu jukk def ay bâche di ko ci centre de santé yi di jël ay gel hydroalcoolique di distribuer. di jël jàkka yi nga xamante ni nit ñi dañ fay julli ak centre de santé di leen abal ay base pour ñu respecter euh, barrières yi di able ay masque yooyu yëpp nag ñu ngi koy def effort yooyu ñuy def yëpp nag tréewul ñuy dund ay coono ak i jafe-jafe yu bari ay emploi yu ñu war a fay ay magasin yoo xam ne dañ ko loué ak ay dépôt yoo xam ne dañ koo def war ko loué war koy fay responsabilité yëpp daa teg suñu kaw ñun nag dañoo teg ci wàllu kilifteef duñu toj auto duñu lak puno duñu bare aw yoon lepp na dañ ko teg ci kliftef ñi ngi talal suñu loxo di wax état bi kéro 4 mois ak tay ñi ngi tok di deglo lañ waxon ci lañ nek defuñu ben activité employé yi ñu wara fay bancaire yoo ya xé dañu leen lepp war leena fay dépôt yoo ya xé dañu leen a engagé war leena fay ak suñu frais bo jëlé suñu pet à gagnant entreprise yi nek 158 de plus suñu perte à gagnant mat na 2 milliards 500 millions loolu nak lañ lay talal loxo nga japp ñu ndax kenn gënuñoo yey ci ñi ñuy jàppale kenn gënuñoo yey ci ñi ñuy dimbali kenn gënuñoo yey ci ñi nga xay ñi ñu ngi leen di taxawu ndax ay Sénégal lañ di goné di créer emploi ta ay 2000 wala 3000 personnes emploi ñi ngi en chômage pour le moment. te boo xamee suñu société mi ngi en en nekkul en sécurité fi ne te yàlla rek moo xam nan lay def fi nekk nii. ñi ngi tàllal loxo nguuru Sénégal pour mu jàppale ñu. xam ni ay ay euh, chef d'entreprise ñoo nekk fii euh, di yëngu ci événementiel bëgg ku leen taxaw ndax ñi ñuy jàppale ñëpp kenn gënuñu cee yey. maam dem nañ ci xalifa bi tey dem ziyaare ji ko présenté ko suñu suñuy suñuy coono ak suñuy cellule bii nga xam moom la ñu nekk ngir mu ñaanal ñu. suñu doléance nag mi ngi noonu ñi ngi koy ñi ngi tàll loxo président ni mu koy dimbalee ñëpp secteur yëpp secteur événementiel sonn nañ.